الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ايها الاخوه والاخوات نحييكم جميعا بتحيه الاسلام وتحيه الاسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ونرحب بكم جميعا في هذا البرنامج المعنون بحديث رمضان ومعكم مرة ثالثة الأخ محمد الحبيب إبراهيم حسن شام مبكي نبكي الله مبكي الإسلام نيونغي سنتي الله برمبي سبحانه وتعالى moom buur bi nga xamante ne moo ñu def ñuy jullit mu indil ñu diine jii di diiney lislaam muy diiney njub di diiney màndu di diiney mbaax di diiney ut waaye nekk diine joo xamante ne diine ju matale la amul xéwal gu gën a màgg nekk jullit moo tax bu la yàlla defee nga judd fekk sa papa muy jullit judd fekk sa yaay muy jullit ñu yar la ci yoonab lislaam ورغا سنت يلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نيغي سنت يلا مينو خيول الاسلام بول نيو تي نيكوي دوندل ديكو دوندي ndax bari na koo xamante ne bëgg naa nekk jullit te nekkul jullit di julli ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi yàlla yónni def ko muy jaam waaye mu gën ci jaam yépp nga xam ne képp kuy baax yonent baa la gën képp ku màndu yonent baa la gën a màndu moom mi nga xamante ne yàlla da koo def muy kadob yërmande ñeel mi yonent bi ne ana rahmatul muhda man maa di kadub yërmande gu leen yàlla jox yenent boobu lépp lu ko yàlla jox muy sharia jottali na ko lépp lu baax ci xeetu lislaam yonent bi jàngal nañu ko waaye lépp lu ñuy toroxal di ñu faagaagal di ñu delloo gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam junj nañu ko desewut ñu dara yann yàlla yokk xéwalam ak muccam yann yàlla jottalil ñu ko suñu julli ak suñu nuyu di ñaanal saxaaba yi àndoon ak moom ngërmande ki yàlla ak yërmandem saxaaba yooyu nga xamante ne joxe nañ seen bakkan ngir diine ji yegsi ci ñun joxe leen seen alal ngir diina ji yegsi ci ñun joxe nañ seen waxtu ngir diina ji yegsi ci ñun suur nañ seen njaboot ngir lislaam yegsi ci ñun saxaaba yooyu amuñ luñ leen fayee lu mooy bëgg leen lu mooy sopp leen lu mooy respecté leen lu mooy ñaanal leen moo tax nag yéem na ma ku leen di doyadal di leen suufeel di leen saaga di leen toroxal li ñu war suñu digganteeg saxaaba yi mooy ñaanal leen njëggal ak ngirmandeg yërmande والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ñu am mbégte ak kontante ci dellu siwaat ak yéen ci émission bi ci télévision bi nga xamante ne mu ngi bëggal jaam yi di leen yee di leen jàngal waaye di leen tàggat yenn yàlla fayal ñu képp ku fiy liggéey yàlla yëkkati maqaamaam yëkkati darajaam mën na ko yan nam ñu ko defal noyo bi ñu leen di noyo nag beneen noy duhut doy walis ko moom la julliti di nuyu wante ci àdduna moom la ñuy nuyu wante ci aljana moom la leen di yàlla di nuyu waaye tamit moom la leen di malaaka yi di nuyu ci aljana taxiyatuhum yawma yalqawnahu salaam kon jàmm ak yërmande ak barke gu tukkee ko ci yàlla yennam ko wàccee ci seen kaw di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala ci kàttanam ak ci dooleem képp koo xamante ne waxtu wii mu ko fekk ci lalu feebaram muy tawat wéradi yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barke Ramadan bii nga fëggal ko boppam mu jóg doxi soxlaam waaye képp koo xamante ne it yow yàlla nattu nga ko seytaane man ko mu def luñ ko tëjee kasu walla boog tooñ nañ ko caabi féetew ko gannaaw njuba tax ñu tëj ko maa ngi lay ñaan yow yàlla nga delloo ko ci njabootam ñi nga xamante ne ñu ngi ñàkk soxla ku leen dimbale soxla ku leen may maa ngi toroxlu ci kanam yàlla mu tàggat ay jaamam ba seen ndimbal yegg ci ñooñ mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne bésu tey bii di bésu talaata mooy fukki fan ak juróom ci weeru ramadaan mu mel nii weer wi xaaj na ci digg bi fukki fan ak juróom dem na li ci des su baree ba bari fukki fan ak ñeent wala fukki fan ak juróom moo ci des ndéem bari na ba bari su ko defee nag yow jullit na nga xisaabaat sa bopp na nga audit sa bopp naka nga mel ci fukki fan ak juróom yi paase ci weer yii nga xamante ne alayhi salaatu wassalaam nee na weerab njéggale la weerab yërmandi la weerab barke la weerab góor góorlu la naka nga mel ci weer wi fukki fan ak juróom yi dem noo ci mel ak alquran noo ci mel ak tudd yàlla noo ci meloon ak ñaan naka nga ci meloon ak def lu baax joxe sarax dimbale ñu ñàkk man sa liggéey respecté sa liggéey yërëm jaamu yàlla yi fukki fan ak juróom yi mbokk xisaabal sa bopp fekkee ne da gàttañ lu woon nga xam ne nag chance mu ngi ci sa kanam ci ay fan yu néew yu des ci Ramadan fan yooyu nga góor góorlu سيدنا عمر بن الخطاب دانيو واخون حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم الله ليسان نينا نيو نانغين دي حساب سين بوب نجك يالا دي لن حساب نانغين ماندخي دي بيس سيني جف فان لا تول نجك نيو كوي بيس سي سين كاو yàlla defal la bunt ubbil la buntu xéwal yi nga fekkee ramadaan góor góor luwuloo ba yàlla jéggal la sa bakkaar dëgg-dëgg gàttañ lu nga dëgg-dëgg nag gàttañ lu nga weer woo xamante ne ku def benn ñu fay la ñaar fukk ñaar fukk yooyu ñu ful ko ba juróom ñaar fukk juróom ñaar fukk yooyu ñu ful ko ba juróom ñaar fukki euh, dégg nga juróom ñaari téeméer dëgg dëgg nag war ngaa góorgóor benn boo def ñu fay la ko twenty twenty ba dañ koy ful ba muy seventy seventy ba ñu ful ko ba muy seven hundred seven hundred ba ñu ful ko ba muy seven thousand ci weer wii dëgg dëgg war ngaa góor góor ci xeetu jaamu yàlla yépp jaamu yalla bo doon def nga gën koo rafetal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena na torox na doyadi ku yalla defal xewal mu fekke ramadan gur lu hut ci ba yalla jegal ko bakaram te ramadan bi ngay orde diko dundal ci julli diko dundal ci jang alquran diko dundal ci joxe sarax diko dundal ci tuddu yalla رمضان بي دا فاي دون سبب تي يالا فارال لا سبكات ييب تي ات بي موتاخ نك ني نك كو نيك تي نون نباي خيل فكي فان جوروم يروم مو فخه يي ديس مو غور غور لوتي خمغا رمضان كوب ني بلي لا امنا ньо خامتاني فوس راون لين دانو نيوم فكي فان يو نجاكي ñoom këpp nañ ba supp jalan dematuñ jàkka ibaadu bi ñu daan sol simmi nañ ko kurus bi ñu jëndoon réeral nañ ko alquran bu ñu doon déglu bàyyi nañ ko delluwaat nañ ci musique ba ñooñu këpp nañ ñeneen ñi nag ci tendance bi ci digg bi ci lañuy ñuy këpp ñoom ñooñu ñoo tene ñeneen ñi nag ci fukki fan yu mujj ci la ñuy këpp ñoom duñ oor ndax dañoo bëgg balaa julli bi sa yaram bu mu wàññeeku nga jëlaat sa poids yu mel noonu déedéet mbokk bul bokk ci ñooñ tey nag suñu waxtaan ñu bëgg koo tënk ci mbir moo xamante ne mu yomb la te mën a may tiyaabu bu baree bari ndax comme que ci ramadan lañ nekk dañuy bëgg nit ñi di gën góor góorlu ci luy maye tiyaabo te mu bari lool tiyaabo lu koy maye bari na lool waaye tiyaabo gu bari te yomb nag moom lañuy bëgg nit ñi di ko am rawatana ci ramadan bi ñu bëgg a waxtaan ak yéen ci li ñuy tuddee ak zikru fadlu zikri muy ngënalu tudd yàlla ngëne lu tudd yàlla ñu bari ci askan wi dañ koo sàggane xamuñu ngëne lu tudd yàlla bala ñuy téye suñ kurus rekk dëj am maa ngi dem ci dëj ba boobu dinga jël sa kaala jëlaale sa kurus fabriqué ay ronkoñ yoo tuur ci mbedd bi ak ca dëj ba fekk du noonu tudd yàlla ëpp na loolu ñenn ñi bala ñuy tudd yàlla daayira moo am ñeneen ñi wasifa moo am ndekete tudd yàlla ëpp na loolu mbokk yi muy jaamu yàlla goo xamante ne lim la mën a may ci tiyaabu gu bari lim mën a def ci sab xol lim mën a leeral ci sab jëmm amul beneen jaamu yàlla bu ko mën a def ci yow def ko ci sab xol def ko ci sab xel أمت وذا سيدتنا عائشة رضي الله عنها نين ينتبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحواله دران تدو يا لفمن دي نك اك تلومن دي نك كون يو اوفيس وارغا مانا ام تايم بوي تدو يال توك ريك اله الا الله فك ياغي سي لابتوب فك ياغي سي ماشين بي fekk yaa ngi ci compite bi fekk yaa ngi drive fekk sax yaa ngi egg ci kaw welo bi ngay traîner ca jimba tudd yàlla lu yomb la yaa ngi takk sa dàll di daw ci fiil ba man nga am tiyaabo gu bari nga yokk ko ci train bi ngay train train bi tiyaabo la ndem xam nga sa diine waaye tudd gi ngay tudd yàlla yenn saay ci daw ba tiyaabo la oto bi ngay dawal dem liggéey dem jàngale ji dem jàngi yaa ngi am jaamu yàlla yaa ngi yaa ngi am tiyaabu ci oto ba waaye boo ci yokkee tudd yàlla yenn saay sa tiyaabu gën a bari fi nga toog nekk ci sa office wala ci sa radio wala ci sab télévision foo man di nekk di fa liggéey ngir teral sa bopp teral sa njaboot yaa ngi ci jaamu yàlla waaye yenn saay nag nga jël làmbañ bi tooyal ko ci tudd yàlla yow yaay jullit piir ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam non la melon. ci tol ba mu ngi tuddu yalla ci jumaaja mu ngi tuddu yalla ci kamba mu ngi tuddu yalla way sallallahu alayhi wa ba ci guerre ba ci xex ba mu ngi tuddu yalla alquran jangal nañu ko ida laqitum fi'atan fathbutu wadkuru llaha kathiran bu ngeen dajeeg ay non wara xex ak ñoom sama borom nee na lu ngeen tiit tiit tudd leen yàlla seen xel dal nit kuy baril di tudd yàlla xelam day dal xolam day dal du tiit ñépp bu ñu ragalee moom du ragal ndax lu tax yàlla mi mu àndal yàlla mi muy dund moo tax waa ji bi mu ñëwee mu ne ko sang bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg ànd ak yow dem aljana jox ma jaamu yàlla bu yomb bo xamantene ne su ma ko takkoowee dinañ ma jéggal samay bakkar waaye boole maag yow ci aljana yonent bi alayhi wasallam ne ko la yazalu lisanuka ratban bi dicrillah fexeel ba sa làmmeñ bi min tuddu yàlla tuddu yàlla bobé ñaari façon la amna ci yo xamantene dafa laaj ini waaye am ci yo xamantene ne laajut yéene moom boo yéenee di nga am tiyabo boo yéenewul dinga am tiyaabu boo ko tayee di nga am tiyaabu boo ko tayulee di nga am tiyaabu moo tax tudd yàlla yomb te neex sama borom nag dénkuñu ko lu baree bari nee na fadkurullaha dikran kathira na ngeen tudd yàlla lu baree bari in wa dakirina allaha kathiran bokk na ci ñiy dem aljana mooy ñuy tudd yàlla lu baree bari tudd yàlla mooy lan mooy sa làmmiñ bi nga am ay kàddu yoo jëlee ci alquran ak sunna di ko répété nekkul fàttaliku yàlla ndax yàlla moom kenn du ko fàtte mosut fee joge ko mu ngi feeg ñun waxtu wu nekk yenn saa yi nga ne subhaanallah yenn saa yi nga ne alhamdulillah yenn saa yi ne yenn saa yi ne astaghfirullah jullit noonu la war a fexee Lam miinee ko tudd yàlla waaye ndeysaan tey soo demee ci ndaw yu bare bari yu góor yu jigéen yi seen làmmiñ saaga ndey rek ci taq waaw booy driver bëgg a dawal oto bi am ku jaar ci sa kanam nangam ndeyam ngay njëkk a wax boo dee kapinta jël daaj bi daaj bi juum dóor sa loxo bi nangam ndeyam ngay wax bu dee da nga nekk ci computer bi di bindi li nga bindi mistake da nga naan nangam ndeyam badalan nga ne astaghfirullah déedéet da danga naan nangam deyam nangam deyam boobu nit ñi miin di ko dégg ci mbedd mi moo tax ba làmme ñi xale yi miin ko xale boo dégg mu ngi saaga fekk nag li waroon a am mooy nit ki bu juumee am naqar tudd yàlla bu amee mbëgte tudd yàlla bu nekkee ci jafe-jafe tudd yàlla bu nekkee ci yaatu yaatu tudd borom bi subhanahu wa taala kon tudd yàlla googu mbokk yi mom lañ bëgg a yan façon la am ak tamin lan la lay may ci tiyab mbokk yi dafa bëri ay fosong. bu ci ñëk moy alquran alquran ci bopam yow mi koy jang yaangi tuddu borom bi subhanahu wa taala ndax yalla ko tuddé nona wa aqimi salaata li dhikri na nga taxawal julli ci tudd gi nga may tudd mooy jàng gi ngay jàng alquran yàlla waxaat ni alquran bi wa innahu la dhikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusalun alquran bi tudd la ñeel la yow muhammad tedd ngal la ñeel la yow muhammad te dinañ leen ko laaj ku nekk ci ñun yàlla dina la laaj naka nga meloon ak alquran kon ci weeri koor bokk na ci loo war a gën a yitteel mooy naka nga mel ak alquran ndax ci leen wàcce alquran ku nekk ci ñun day bëgg di feetu bàddeeyam ci ñi nga xamante ne dañ gis ne dagam na waaw bés bi nga judd bu dellu see di nga jënd fële kéeg five hundred jënd fële ay wonjoog ay juus ñu ne lu xew nga ne sama bési judd lay màggal baax na lool fekkee ne na nga koy màggalee rafet na kon nag weer wi nga gane si àdduna weeru rabaan jullit yépp war nañ koo yëg ورنا كو مغال سين ريليشن اك القران ورنا مو شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كنت لا جيت موي بان موي نغا فخي سلام القران مو يم لول وادو خامتني لوكو اوبيل تي بوغ توباب مو لير كو بام جيخ محمد لا تدو ibrahim la tudd isxaqa la tudd fatima la tudd xadija la tudd moom daal riitam tubaab aka ko yomb waaye nag alquran moom munut ci dara déedéet du noonu mbokk ni nga góor góorgóorloo ba mën a riit tubaab boo góor góorgóorloo genn wàll gi danga mën a riit lenn ci alquran gis nga alquran bii kenn amul ci ngant ci ñàkk koo jàng kenn amul ci ngant sama baay yóbbuwul ma daara moo tax mënuma koo jàng duhut ngant man de dama demon daara ma daw duhun ngant dama febar duhun ngant damay business duhun ngant damay liggéey duhun ngant alquran kep kuy wax la ilaha illallah muhammadun rasulullah war gurgul luba ba man ci jang tout bes bu nek war nga yokk ci alquran rabatana ci ramadan waaw mënuloo jàng ooyal ustaad bu la jangal da nga man mo xam dang koy fay wala da koy def ngir yalla waaye bul toog mukk naan mënumaa jàng xam nga ne mënuloo woon togg de waaye dañu laa jàngal togg nga man mënuloo woon driver dañ laa jàngal nooy dawalee nga mën a dawal mënuloon a wax dañ laa jubbanti nga mën a wax mënuloon a dox dañ laa dimbale nga mën a dox bi nga màggee ak léegi li fi man boro jaaykati pànket bi mënutoon a defar nañu panket waaye góor góorlu na ba mën a defar panket jaay jaaykatu mburu bi noonu jàngalekatu tubaab bi noonu ku nekk ci ñun góor-góorlu nga ba sa mécc nga man ko kon alquran bi tamit ni nga góor-góorloo ci li nga man noon nga war a góor-góorloo ci alquran man ci lenn moo tax yàlla ba muy wax ci suratul muzammil dafa ne dégg nga alima an sa yakunu minkum marda fa qara'u ma tayassara min alquran jàng leen alquran lu ngeen ci man rek waaye nag man yàlla xam naa ne dina am ñu ne dañoo feebar sama bët bi neexul sama nopp bi neexul sama làmmiñ bi dee doxul sama borom ne alima an sayakunu minkum marra danaa xam naa ne am na ñuy lay naan man alquran daal manuma koo jàng damaa feebar am ñeneen ñu ñëw ne wa axaruuna yadribuuna fi l ardi yabtaxuuna min fadlillah ñeneen ñi naan yow yàlla jéggal ma man awma taayim ndax man business la suba maa ngi ci bitig bi ngoon maa ngi ci bitig bi guddi maa ngi ci bitig bi i don't have time yàlla ne ko déedéet il faut nga jàng keneen ki ñëw ne wa axaruna yuqatiluuna fi sabilillah ne ko yow yàlla man billahi awma taay man maa ngi téye sama jaasi bi nekk ci àll bi di xeex wala boog man ootekat laa waaraatekat laa maa ngi ci télévision bi jóge koo fa dem ci radio bële jóge koo fa dem ci conférence bële awma time pour read al quran yàlla ne ko yéen ñépp kenn amut lay faqra'u ma tayassara minhu il faut ngeen jàng bala ngeen di dem liggéey mos leen ci alquran su ngeen liggéeyee ba wàcc mos leen ci alquran wallahi nii la ko yàlla waxee kenn amut ngant kenn amut lay kon nag maa ngi lay ñaan yow jullit yow mi may déglu yow mi may seetaan laajaatal sa bopp man de nii laa tudd dib jullit naka laa mel ak alquran bii nga xamante ne ci ramadan ak ci lu dut ramadan yonent bi sallallahu nee na ku ci jàng benn xarf بن حرف بن لتر nga jàng ko ci alquran su dut weeri koor dañ la koy fay fukki tiyabo baun rek soko waxe baun man nga ko ba mënuloo sa sama borom nee nañu fay la fukki tiyab bu dee ramadan nak ñaar fukk lañ koy def ñaar fukk yoyu ñu divide ko fulaat ko juróom ñaar fukk man qara harfan min kitabillahi فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها الله أكبر لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ويقول قول المبك سو جل فجر تيسب القرآن ريت لومن سو بواتي جل تمس ندقو noppaliku جل نافلة جلات sab القرآن rit توتي tuuti اوتي أستاذ بنيو ustaaz جانجل موغن تيو waye bul tok mukkul ne lima ci am doyna dedet alquran upp na luma ci am doyna alquran fim toll moy kima ci bëmax ma jël alquran fof la toll waye dugut ne luma ci am doyna alquran ni nga wara mel ak mom moy tak si rep ni ko kat bi waxe non nga wara mel ak alquran motax kun ngeenal gogu nek ci alquran yenent sallallahu alayhi wasallam sallam jàngal ñuko warna tax sa làmmiñ bi nga fexe nak gor gor lu ci alquran yonent bi alayhi wasallam ñu ne ko ne waw man de wax dëgg xel la alquran dama ciy góorgóorlu waaye damay yàq rek munuma jang jàng-jàng bu set yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne alquran ñaari nit ñokoy ñoo koy jàng almaahiru bilquran maa safarati alkiraami almarara marara والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران mu ne ki ko mën a jàng nga xam ne moom amul ci coono day jàng rek mu dem yonent bi ne na kooku moom ak malaaka yi ñoo bokk benn dëgëre waaye ki nga xamante ne day góorgóorlu moom manut moom wax dëgg la màgget na wala sax fi mu ne nii jànq la ponkalam jànq la wala ponkalam jéeg la wala ponkal waxambaane la mu ngi denc ñaari jabar ñetti jabar waaye alquran bi moom yàllaa dogal ba mënu ko waaye bés bu nekk mu ngay góor góorgóorlu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne na yàlla da koy fay ñaari fay coono gim ci am ak bëgg gim ci am nga ne ma man daal wax dëgg yàlla oustaz fi mu ne nii weeru koor li ci des manuma or di jàng ma ne la amuloo lay waram xam-xam yi ñu ne alquran déglu ko rek ñu bindal la tiyaabu yow boo koy déglu taal sa télévision di déglu alquran taal sa rajo di déglu alquran yore sa mobile di déglu alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak borom xam-xam yi ñu ne daal loo ci déglu rek ñu bindal la ci fukki tiyaabu ubbi ko di ko xool te mënuloo koo jàng sax da nga koo bëgg rek jël ko teg ko ci sab oto bés boo duggee ci oto bi xool alquran am cofeel ci moom wala nga teg ko ci sab taabul ci digg saal bés bu nekk nga ñëw fomp ko bam mu set tegaat wala nga ubbi rek xool tëjaat te xàmmewuloo lu ciy ñuul ak la cay weex sax nag ñu ngi lay bindal tiyaabu loolu alquran rek ko ko am amul benn bug bu ko am budut alquran xool ko ñu bindal tiyaabu jàng ko ñu bind la tiyaabu déglu ko ñu bind la tiyaabu moo tax jullit bi war naa baril di déglu alquran fekkee ne da ngay déglu musique sax waaye li ngay déglu alquran moo war a ëpp li ngay déglu musique soo demee nag ba li ngay déglu musique ëpp li ngay déglu alquran xamal ne ci caaxaan nga nekk sa xol wow na bu dee da koy déglu sax yenn saay jël jëli baa déglu benn fan te ba ay ñett fan ñeent fan yëpp yaa ngi ci alquran loolu moo gën waaye musique bi rek musique bi rek musique bi rek déedéet kon mbokk yi tudd yàlla ngóog benn xarab ci alquran ñu bindal la ci ñaar fukki tiyaab kon alquran tudd yàlla la fàttaliku yàlla la sama borom ne ne képp ku ko bàyyi nanguloo koo jàng sa dund gi day jafe wa man arada an dikri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى نقول جنغ القرآن سان بروم لين لو دغلو غاوا سوتي دا ام سيرتيفيكيت بو كوريك ياكار نا دينين لا جيل سي يو كوريك واي سو ديمي ابلاي دون لا جيل ناخ داغا دد وانتك القران كون نك نييب لاني القران اوتي تيابو غو باري باري رواتنا رمضان بي ني kon bobu ben façon la ci tuddu yàlla bokku na ci tuddu yàlla yi moy batu la ilaha illa allah bat bobu bat bu for la tuddu ko diko wax ngënal giñ ci am kenn xamul nim toll alayhi salaatu wassalaam nee من قال لا إله إلا الله مخلصا به دخل الجنة aljanna بات بي تسلل كو te sellal يننتي صلى الله عليه وسلم نني بو دي الجنه مو واخات من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه كيب كوكا من تنباتم غو مجي موي لا اله الا الله كوكو الجنه لاي دم نكا غاي فخي نك با بات بو مجي تي دي لا اله الا الله موي داغي فخي تامكو يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا wa fil axira ci baat bii soo ko tàmmoo di ko wax yàlla moo lay defal ngënal ba keroog bi ngay génn àdduna ñuy rocci sa ruuxu da ngay taqoo laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah te aka yomb laa ilaha illa allah soo ko waxee am ci éene ñu bindala tiyaabo soo ko waxee éenewuloo ko ñu bindala tiyaabo boo ko tayee ñu bindala tiyaabo boo ko tayul ñu bindala tiyaabo xam nga yenn saa yi da ngay génn rek gis lu la yéem nga ne laa ilaha illa allah tiyaabu am nga tiyaabu gu bari wala nga liggéey ba sonn togg añ ba sonn wala toog ba mu yàgg wala taxaw lu yàgg rek ne laa ilaha illa am nga tiyaabu donte ne ñu bari ci ñun nuñ koy waxee sa baaxut laay lay la laa waaye am nga tiyaabu donte ne laay lay la nga wax sax am nga tiyaabu ndax sab xol mooy laa ilaha illa mhm, am nga tiyaabu moo bari na ñu ñuy tàngal naan kuy tuddee yàlla noonu amuloo tiyaabu am nga tiyaabu ndax yow déggulu arab nekkut sab làkk waaye li nga bëgg a wax yàlla xam na ko su ko defee kun baatu laa ilaha illa allah moom it ci tudd yàlla yi la la bokk nit ki war na di ko baril di ko wax waaye nag boo koy wax da ngaa war a teewlu da ngaa war a teewlu wa laazimi alxudura wassukuuna bàyyi ñas nee na booy tudd yàlla na nga teewlu teewlu jëmm yàlla ji borom bi subhanahu wa taala ak màggaayam ak kaddu gu sell gi ngay wax laa ilaha illa allah dàq nga lépp lu dut yàlla lu dut yàlla it neen la te dara nekkul fi ku mooy yàlla waaw moo tax Baay Ñas bi waa ji ñëwee ci moom ne ko jox ma wird Baay Ñas jox ko kaddu laa ilaha illa allah waa ji dem ñëw ne ko ana yàlla gisuma yàlla Baay Ñas ne ko tadabbaril adkaara yaa muaad فربنا المهيمن الملاذ نغا ستنتل بات يي غاي واخ يالا سوريول يالا جوغي كول في سو كو ديفي نا كون مبوك جوخنا لا تاي لا اله الا الله فكين دان كو دان ديف يوكال تيغا خامني امول بيرتاما تودو يالا ماني امول بيرتاما غيس nga way kat bi lim doon wax nan jay fondé amul pertement tuddu yalla gi tamen amul pertement ndax lutax amul pertement moy ne boko ko ñu bindal tiyabo boko yëgul ñu bindal tiyabo bo yene ñu bindal tiyabo bo yene wul ñu bindal tiyabo moy batu la ilaha illa allah kon kookee fosong la ci fosong gi tuddu yàlla yi bokku na ci nu ñuy tuddé yàlla muy bat yu yomb te bëri tiyabo lol moy subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim téyel sep kurus rek nan subhanallahi wa bihamdi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wa bixamdi subxaana allahi alcadiim nekk ci rek nekk ci rek baat yi yomb la fi nga toog ngay toog amee sa benn per bu ndaw mooy per yooyu jigéen ñi def ci seen baaroom yi di ko tuddee yàlla di bés rek subhaanallahi wa bihamdi subhaanallahi alazim xamuloo sax ci li nga nekk waaw yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaari baat yi ma jox la kalimataani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يونت من نياري باتنجني يومبنا لول اويفنا لول تي لامي ديسنا لول تي باسكيل يالا سوبنا ñu ne ko ban ak ban la mu ne subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim allahu akbar loolu yow miy dawal oto sax mën nga koo wax te yaa ngi dawal subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim yow mi nekk ci computer bi waxal ànd ak man subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim te yaa ngi bés yaa ngi taayib yaa ngi def loo mën a def yow mi nekk ci waañ bi mën ngaa togg ba ci kanam ne subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim yàlla kontaan ci yow yonent bi ne yàlla daa bëgg ñaari baat yi يومي فوت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تيجي بي جانغالي تي كلاس بي مانا جانغالي بي خم خم بي جخصو مو بغا ديلو سيوات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يلا كنت أنت موم يوكل كو خم خم بارك لال كو نيموي جانغال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kon boobu beneen la am na beneen tudd yàlla bu ñuy tuddee subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah yii baat yu yomb la yonent bi ñu laaj ko ngënalam mu ne subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani ma bayna alsamai wal ard allahu akbar yonent bi nee na baatu subhanallah ak baatu alhamdulillah mo xam dang nga leen boole ñoom ñaar wala dang nga leen tàqale yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko ci wax ci ñoom ñaar rek da fay feesal diggante asaman ak suuf ci tiyabu way imaginer nga wax ko ci ramadan subhanallah walhamdulillah tamla'u aw tamla'ani ma bayna as alsamai wal ard motax tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam dafa toog ak sahaba yi ne leen ne ndax duma leen tegtal jaamu yàlla boo xamante ne moo gën a màgg moo gën a màgg ngeen téye seen jaas yi dem jàkkaarloog yéeféer yi di xeex ak ñoom ngeen di dóor seen doq yi ñoom it ñuy dog seen doq yi xayrun lakum min an talqaw aduwakum fa yadribu anaaqakum aw tadribu saxaaba yi ñoon ñu ne ko ah kay ñun ñun kay bëgg nañ jaamu yàlla bu gën a yomb jihaad jaamu yàlla bu gën a yomb xeex ban la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ne tudd yàlla tudd yàlla tudd yàlla tudd kon nag mbokk góor góorgóorlu ci tudd yàlla yii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ne gannaaw bu mu jullee ba pare gannaaw julli farata bu nekk dafa wax subhanallah fanweeri yoon ak ñett 33 times alhamdulillah 33 times allahu akbar 33 times tëjee ko laa ilaha illa allah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kooku jéggal nañ ko ay bakkaaram dem na aljana nga julli ba pare rek toog fi nga toog ne subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ba muy 33 times jógee koo fa ñëw ci alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy tati three times jógee koo fa ñëw ci allahu akbar allahu akbar allahu akbar ba muy tati three times est ce que xam nga ñaata tiyaabu nga am te jëlut la sax five minutes yonent mi nee na jéggal nañ la sa bakkaar jéggal nañ la sa bakkaar allahu akbar ñaata ci ñun ñoo koy sàggane julli ba pare rek aca lem seen sa jaare yi dem fàtte nañ loola duñ ko def ñenn ñi xamuñ ko sax te xamuñ ne mu leen di may ci tiyaabo bari na lool waaye rawatana ci ramadaan kon mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen ci ramadaan xaaj na mbir yaa ngi nii yoo xamante ne yu yomb la te man laa jox tiyaabo gu baree bari tiyaabo gu baree bari yàlla yit di la ci jéggal sag bakkaar muy tudd yàlla wax naa la bi ci njëkk mooy jàng alquran bi ci topp mooy laa ilaha illa allah nga xam ne yonent bi sallallahu wa sallam nee na afdalu ma qultu انا والنبيين من قبلي لا اله الا الله لو جيم تي لي موسا واخ مان اك نيما جيتو موي باتو لا اله الا الله جاي كوفا ما جوخ لا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما جوخات لا سبحان الله اك الحمد لله تي اي تيابو يو خامتني يونتبي صلى الله عليه وسلم موي كيغا خامتني مولاكو جانغال gis nga tuddu yàlla googu mbokk bokk na ci li muy def ci yow mooy daf lay may tamanina تطمئن القلوب تتد يالا تي لاي خول دالي تد يالا غوغو دالاي مي ورسك غو باري باري سيدتنا فاطمه دي دوم تي سانغ بي صلى الله عليه وسلم دا فا نيو تي يوننت بي نيكو غيس nga sama loxoy niñ wowe yep nga futtu ndax man may fotal aliyu ma koy rotal ma koy balel ma koy togal dama bëgg nga jox ma mbindaan laa bëgg yonent bi sallallahu alayhi ne ko demal ba ëllëg nga ñëw su ëllëg si ba mu ñëwee mu ne ko ne loo bëgg nga ne mu ne ko ne damaa bëgg mbindaan bu ma fóotal ak bu ma toggal yonent bi sallallahu alayhi ne ko naka laa lay utalee mbindaan te soo gëstoo léegi gis ñoo xamante ne ñu ngi ñàkk amuñu luñ lekk amuñu lu ñu naan amuñu ñoo xamante ne ñooy seen jabar ndax amuñu ñu takkee jabar te man la leen yàlla dénk maay seen président nu ma lay joxee yow nga am jëkkër am loo lekk am loo naan bëgg min daan dolli ci Fatima jóg commencé jooy ndax baayam da ko waar yonent bi sallallahu alayhi wasallam oo ko ne ko kaay naa la jox baat boo xamante ne moo gën mbindaan moo gënit àdduna ak li ci biiram mbokk yi sang bi sallallahu alayhi wasallam nii la meloon ak tudd yàlla waye ni la doon yaree njabootam ci tudd yàlla waaw nii la doon yaree njabootam ci tudd yàlla su ko defee kon nag tudd yàlla yooyu dafay tax sa wërsëg gën a bari dafay tax nga am dal am gëm yàlla dafay tax doo tiit doo ragal sama borom nee na alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نينا ما نجد تقن ينغا قمنتني دنيو تدو يالا وقت ولك سنو تدين نيو تدو يالا بنيو توغي نيو تدو يالا بنيو تخوي نيو تدو يالا بنيو دخ نيو تدو يالا نيوم دال دنيو كوتام تفولن فكي نيو خاطر تي يالا برمب سبحانه وتعالى كنك يوم بوك نغا فخي بوك كتنيون bokk na ci tudd yàlla yi lay dimbale mooy wax xasbuna allahu wa ni'mal wakiil xasbuna allahu wa ni'mal wakiil lim mën a maye ci xéwal kenn xamul ni mu toll xéwal lay may moo tax saxaaba ya ba ñu jógee koo badar yàlla nee na wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakiil فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله kon nag wax ji ngay wax xasbuna allahu wa niamal wakil bu la neexee nga teg ci niamal mawla wa niamal nasir dafay ubbi sa buntu wërsëg waaye dalay may tiyaaba gu bare bari fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suu wattabacu ridwan allah kon yii ay façon la ci tudd yàlla bokk na ci li lay gën a may tiyaaba ci xeetu tudd yàlla yi mooy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci sang bi جولي ci sang bi nag اي لفظ بولا نيهي nga جيل صلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد بوب موي صلاه الابراهيميه موم سوي جولي با اغ سي تايا موم رك nga meuna def lolou julli ci yenen bi la بكل تنجد صلى الله على محمد والله صلى الله على محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يب أي خيط تدو يلا أي أي خيط جل تين أنت بلا يا يوقف من تنجين الجبرة بري موجنك بلا خيط نجل صلاة الفاتحة صلاة الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق بمجيخ بوتي وخرك سنيخي اللهم صل على عين الرحمة الربانية بام جيخ كم كأمن جل تيننتي بي أك سلمل تيابك بري بري نغا تيمون أم يننتي صلى الله عليه وسلم نينا من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا ومن صلى علي عشرا صلى الله بها عليه مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي إلى باب الجنة صلى الله عليه وسلم يننتب صلى الله عليه وسلم نغا توغ رك جولي تي من جولي تي من واخ كادو جي صلى الله على محمد يننتب ني بوكو واخي بن يون يالا جولي تي يو فك يون موي مو واتي يرمانديم اك باركيم اك ورسغم تي سا كاو ben yon rek nga koy wax ben yon yàlla defal lako fukki yon nga wax ko fukki yon yàlla defal lako temer yon nga wax ko temer yon yàlla defal lako junne yon neena boko defé junne yon nga julli ci yonent bi junne yon yawmal qiyamati man sama mbag ak sa mbag ba aljam yonent baa ko wax te gëm nañ ko kon mer fi nga tok neel sallallahu ala muhammad bàyyi fi nga toog neel sallallahu ala muhammad eh yow liggéeykat bi laa wax de lu yomb la neel sallallahu ala muhammad nga am tiyaaba gu rëy gii waaye li ci gën a yéeme yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla dama defal ci sama bàmmeel malaaka boo xamante ne luy liggéeyam mooy yàlla da koo xamal turi doomu aadama yépp ci àdduna képp koo xamante ne ci man malaaka bi dama naan diw doomi diw julli na ci yow manit ma daa di ko delloo julli googu ak nuyo googu allahu akbar nga ne sallallahu ala muhammad yonent bi nee na malaaka bi taxaw sama wet daf ma naan e muhammad ma ne ko ne naam mu ne ma gis nga fatima mii doomi ibrahima mii julli na ci yow manit ma ñëw julli ci yow yow fatima doomi ibrahim bu ko muhammad habib defee malaaka bi dama naan muhammad habib doomu ibrahim Jam julli na ci yow ma daal di ñaanal muhammad habib moomu est ce que yow comprendre nga ñaanu yonent bi est ce que yow yaa ngi comprendre ñaanu yonent bi waaye ñaata ci ñun ñoo koy duñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ki gën a nay gën a bon ci boppam mooy ku dégg ñu ne muhammad waxut sallallahu alayhi wasallam soo déggee ñu waxu turi yonent bi foo ko dégg loo yàkkamti yàkkamti neel sallallahu ala muhammad yonent bi nee na boo ko deful bokk nga ci ñi gën a nay saxaaba bi dafa ñëw ci muhammad ne ko li nga wax ci ngënalu julli ci yonent bi est ce que du ma la du ma la jox dégg nga su ma dund bi yëpp ma xaaj ko ñeent xaaj benn xaaj bi ma koy dégg nga ma koy julli ci yow rek comme dee bi yëpp dama koy xaaj ñeent xaaj benn xaaj bi ma koy julli ci yow rek yonente ne ko boo ko defee baax na waaye boo yokkee it doo perte mu ne ko kon est-ce que du ko xaaj ñett xaaj bés bi yépp ma xaaj ko ñett xaaj jël benn xaaj bi yépp di julli ci yow rek yonent ne boo ko defee baax na waaye boo yokkee mu gën a baax mu ne ko nag est-ce que kon duma ko xaaj ci digg bi ma xaaj ko ci digg bi sama bés bi sama dund gi yépp ci digg bi laa koy xaaj benn xaaj bi yépp ma def ko ci jaamu yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne boo ko defee baax na te it boo ko defee it dégg nga jaamu yàlla googu maanaam julli ci yonent bi boo ko defee fa hammuka wa yuxfar zambuka boobaa lépp loo soxla ci àdduna yàlla defal la ko julli ci yonent bi rek waye tamit lépp lo defon ci bakkar yàlla jéggal lako ngir lan julli ci yonent bi kun mbokk del baril di julli ci muhammad neel sallallahu ala muhammad mom rek moy jaamu yàlla bi nga xamantene yàlla def nako malaika yi def ko jullit yu bax yi di sax di ko def inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon nak yépp xeet la yoo xamante ne nit ñaa ngi koy fàtt te fekk nag liñ ci mën a am ci tuyaaba bari na lool su ko defee yokkaatal sa jaamu yàlla yokkaatal sa tudd yàlla yokkaatal sa fàttaliku yàlla yokkaatal sa ragal yàlla ci xeet yi ma wax sa digganteeg alquran seetaat ko sa digganteeg la ilaha illa allah ko sa digganteeg subhanallah seetaat ko sa digganteeg alhamdulillah seetaat ko sa digganteeg allahu akbar seetaat ko sa digganteeg subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim seetaat ko sa digganteeg julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallama seetaat ko tiyaaba gu bari la ñu ñëw ci beneen point ci tudd yàlla muy wax baatu astaghfirullah ak ngëneel gi nga xamante ne moo ci nekk booba ci beneen waxtaan dinañ ci ñëw moom baatu astaghfirullah continuer gi yow ci xeetu tudd yàlla yi ak ci yeneen jaamu yàlla yoo xamante ne yu yomb la te nga man koo am am gu yomb te fekke sax du jël ci yow doole du jël ci yow waxtu wu baree bari tudd yàlla yi ñu doon waxtaan ci la bokk waaye nag next waxtaan incha ak yeneeni façon yi tudd yàlla yoo xamante ne lim la mën a may ci tiyaabu bari na lool li ñu amoon ci waxtu jeex na tag seen mbokk la muhammad Habib Thiam ñu ngi nuyu ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi ñuy topp ak ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi ñuy seetaan di nuyu waa dégg nga télévision bi waaye di nuyu waa suncu alxaaji yëpp ak kilifa yi fa nekk yëpp Cheikh Ibrahima Hassan Thiam alkaali Salihu Cissé suma nijaay Omar Abdullahi Mbow suma sëriñ Cheikh alxaaji babu Touré suma mag Mouhamed Gueye di nuyu daal kilifay dëkk yi kilifay réew mi kilifay aada yëpp ñu ngi leen di nuyu waaye di ndokkeel suñ mbokku sénégalais yi ci président bi leen yàlla jox di ko ñaanal yàlla lim ko en mu oyofal ko ci kawam waaye tamit mu tàggatal ko liggéeykat yu am yéene liggéeykat yu sell liggéeykat yu am xam-xam yàlla mën na ko yal nam ñu ko yal nam ko ko defal ñu nit ki fi yàlla teg mu tàggat ko yokk mat manam yokk xam-xamam yokku yitteem ak ñëpp ño xamantene ñu ngi ànd ak mom te fas ene ligey kep ku ànd ak mom nek yak kat mu ngi ñaan yàlla ci dolem ak ci katanam mu faxas la fi yàlla mun nako ko yem nañu ko defal hada billahi tawfiq in uridu illa islah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaykum wa rahmatullah